yonent yi yan yan lañ ëpple waaye gënuñu nu judd yonent yépp laa wax yan yan lañ nu ëpple ma gënuñu nu juddu ndax nun ñépp Aadama ak Hawa moo ñu judd xam nga loolu bala nga koo xam xawa dee boko ko ba nopi bala ko jeme wax xaw waye mom xam nako wax nako xam na ni yonent yi ñu nu judd wa ñun ñépp adam ak hawa mo ñu jur mu delu ci la xale ba waxon te ngeen di netali mu reelu bu ngeen li lu mu doon xale ba papam dafa nek savant bu bo anthropologue la di ci liggéey liggéey yu te amul lu dul benn doom bu góor doom bu góor bi jékki-jékki ni ko papa ci lan fu nu jóge nun mu ni ko ci golo mu ni ko ah, naka lañuy ñu def ba nekk nit mu di ko expliquer di ko expliquer di ko expliquer mu mu tey jeex xale bi daal xam ne affaire bi doxul mu bàyyi ba yaay ji ñëw mu ni ko yaay nun fu nu jóge mu ni ko ci aadam ak xawwa ñaari ñu tedd boroom bu tedd bind leen ci ñaari loxoom yu tedd mu ni ko ah te sam ni ci golo la ñu jóge mu ni ko moom moo jóge ci golo <laughs> waaye maag yow ci Aadama ak Xawwa jóge ah yàlla ate xale ba gëm loolu dugg ci biir eh, camarades yi liggéey waa quartier bi yëpp ba xale yépp gëm ni seen baay yépp ci golo la jóge wallaay ndeysaan gëm itam ni ñoom xale yeeg seen yaay yépp ci Adama ak Hawa la jóge bu ko defee rek xare ba takk waaw xale yépp di daw seen papa ñépp ah waa quartier ba daje ni nañ ci sàkk pexe ñu fexe ba jàpp góor gi rek génne ko moo ki mu doon def yépp ni ko tas nga sunu quartier bi fekk xale bee ko tas moo dina dinaa ko di wax sëriñ Pape Malick mi di ko wax sëriñ Moustapha mi ni leen xale yey mujj yar xale yi des na tuuti mag dootul man yar xaleel buñ ko préparé dana baax lool buñ ko préparé wul yàqu-yàqu bu rëy dana am des na tuuti rupture am waaw te bu amee gis nga yi mag ñiy wax naan xale yi lii xale yi laa mag ña gën a dof xale yi ma wax la ko nag waaw ku la ko waxul xamul sax lu xew mag ñi xamuñu dara ci lu ñuy wax dañuy soose rek waaw moo tax des na tuuti xale yi ñooy yar xale yi est-ce que xale yi doroge mag ñee leen yàq déedéet seen moroom yee leen koy jox mais ëllëg itam xale yi nar a jub seen morom yee leen ti yar amul werante

boo defee nag mooy dëgg xale yi duñu nangu amul kenn ku sa doom nangul fi nga toll amul mën na la nax nag waaw waa dinaa def li nga wax may ma foofu lu ma jënde akara bu ma demee ekool ngay tës tësi dindi dara jox ko waaw waaw def ni ci bopp bi fekk nax na la bu yàgg waaw fekk naa ne la bu yàgg bu dëddee rek ni vieux bi ni mu lakkalee waaw loolu ciy mujj moo tax xoolaat ko baax na de ndax yonent bi waxul ni bàyyee yar xale yi dafa ni bàyyee yàq xale yi su ma abawaa yu hawidaane yu nasiraane yu majisaane waaw loolu la wax nee na bàyyee yàq xale yi ci aada te loolooy dëgg moo tax seetaatal sa philosophie bala nga yar sa doom waaw